waaye maam Cheikh am na tawféex ju toll ni xam ne sëñ Touba gën ci moom mbokk sëñ Touba gën ci moom jaambur moo gën ci moom ndey moo gën ci moom bàyyi moo ci moom lépp. <laughs> sëñ bay jaxat na woon gën ci nun sunu ndey yaa gën ci nun sunu baay yaa gën ci nun ku nu xam bàkk yaa di sunu baay mu ngoog am nan lu gën bàyyi am nan lu gën yaay tey falu nan saa yi neexuñu bañ yi noonu la sëñ bay jaxate waxoon maam Cheikh xam ne sëñ bi gën ci moom lépp ndax uqaddimu ustaasi ala xaqi walidi wa in kaana lii fii waalidi lbir wasil wa in kaana lii fii waalidi lbir wala wa haza murabbi ruuxi wa ruuxu jawharun wa haza murabbi ljismi wa huwa lwasil shaacir ba daa waxoon ne sama ustaas bi may jàngal di ma yar xaqam laay jiital ci sama xaqi wayjur moom laay gën a fonk moom laay jëkke ci lépp ndax gis naa ne wayjur moom sama yaram rek lay toppatoo na fexe ma lekk naan sangu set wala sol ay yére loolu moom ci la yem kii nag sama ruux lay toppatoo te yaram moom mbiram soriwut ruux nag mooy wurus yu nga xam ne bu ñu ko selalee ba mu baax amatul fu muy yem maam Cheikh Anta loolu la ci deretam mu nekk maj bu wala luñ mooñaale moom moo tax sëñ Tuubaa ko gënal ñëpp boo ko doon sëñ beeg sa baay ku la gënal mu ne xanaa sëñ Tuubaa sëñ beeg sa yaay ku mu ne xanaa sëñ Tuubaa sëñ bi sa loo am sa koo am mu ne xanaa sëñ Touba aajo yi sëñ Touba it mës dugg am noppam moom dafa juwut ci jamono boo xam ne sëñ bi nekk na fii ci mbakki bis boo xam ne daam ay gan gan ñu tedd ñoo xam ne yelloo nañu wutal leen ndawal jooju jamono ndawal yombut soxna jaara sëñ Touba jaaxle lool ci loolu bi ko maam Cheikh Anta yëgee anu ananu mu def daa dem jël fetal goo xam ne ma ngi ko amee woon ci ndeyam maam Anta Ndiaye daal di dem kayal jaay ko fa ba mu jaayee fetal nga jënd ci aw nag kër goo xam ne ginaar bu mën a rey amu fi nga indi fiw nag mënta kër rey ci ñoom ndax jooju jamono pexeem am aw nag moom doy na war sëñ moom amut ndawal lu mel nga ne moom sëñ Tuubaa mi moom nag yi tey boobu amul ginaar képp gum nga ne ganam te xam na lan mooy ikramu dayfi nam toll ci rasulullah rasulullah mustaam gën mukk te tëral ko mhm. sëñ Tuubaa moom rek lay roy loolu def ko jaaxle maam Cheikh topp ci nag bi lan di indi bi ñëwee war ko sëñ bi sëñ bi daay yéemu ci maam Cheikh nu mu def ba nag bi mu laaj ko mu xamal ko ko ne ko fetal gu ma amee ci sama yaay laay jaay ca kayal jënd ci aw nag indi sëñ bi daa santaane ne bu ñu ko feesee bu der bi bënn ñu rend nag yu fees ko toj ko lal der bi mun a seex toogal ci ler bi mu toog mu ne ko felenkulaayul maam seex felenkulaayu daj ci der bi sëñ Tuubaa di ko wër ci ñeenti xibla yépp lu tari alxuraan ba mu noppee la ko ne seex mu ne ko mu ne ko li ñuy tudde ak maas de yow kawe nga leen <laughs> waaw kuñ la dënd rek féete nga ko bis ni ki tey nga xam ne keroog la am maqaamam féete kaw kuñ koy dendaleel ku ñuy tudd tudd Seex rek maam Cheikh Anta am na ci sa kaw ngëneel loo xam ne amul hmm. te ca bis boobu la ko topp amul yitte jum mas a dégg mu doon yitte sëñ Tuubaa te yitte jooju faju hmm. mook moom ci réew mi bari sëñ Tuubaa sañ ca Daaru Salaam sub talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la ko sanc 1886 du ko sori moo tolloog 1304 en Amadou Dasech ci la sëñ Tuubaa sañ ca Daaru Salaam ñaari at dong la moom sëñ Touba Daaru Salaam ñaari at la fa def génn sëñ Touba waaye bi muy ci Touba nag mbooloo mi ko gëmoon toll nañ ci téeméeri nit ñu manqué benn yoo xam ne daara dongoy laxasaay lañu yoo xam ne fu sëñ bi fanaan fa la ñuy fanaan fu mu yendu fa la ñuy yendu di ko xëy la ko gontal ñëpp la may maam si wax da ñëpp booba maam si wax fukki at ak juróom-ñett rek la am hmm. boo ko ne jàkk jalal jàkk jamaal ji leer ga taar ba nekk ci moom mu nekk ndaw lu wattu alxuraan am xam-xam sell jub mel melokaan wax boo koy xool di ko bëgg mu jël ñépp may maam Cheikh dëkk bi maanaam seexal na ko daal mm-hmm. booba mag ñépp a ngi fi ñépp ñu ngi fi waaye maam Cheikh la yëkkati ñëpp dégg ko moom moo tax maam Cheikh Sëñ Tuubaa teel na ko tarbiya la woo mm-hmm. waaw tarbiya ak defar ak womat aw nit loolu ci fukki atam ak juróom-ñett ci la ko sëñ Tuubaa àggale foofu mu jël juróom-ñeent fukki taaru bi ak juróom-ñeent maam Cheikh téeméeral leen sëñ Tuubaa may ko ko may ko dëkk bi ana ban dëkk la ko may. Mhm. dëkk boo xam ne nee na mboolem li may nekk ci géej sama xel mësta jóg ci Daaru Salaam ak Touba. mboolem li muy nekk ci géej gi buy ñaan yàlla wàññi ko sax danaan yàlla yàlla nga ma waññi ba yóbbu ma Daaru Salaam. waa ruddani ila waruddani sarian ila touba wahutni wa allimi yàlla na nga ma delloo touba yàlla na nga ma delloo daaru salaam ilahi ila daari salaam illati biha unaajika otni aajilan waqfidil xarba yow yàlla nga xam ne falaa déewoon ak yow nga feeñu ma fa may ma fa lag ma fa may maa ngi ñaan nga delloo ma fa ci lu gaaw te nga fegal nu nag xeex waaw bu xeex am bu bal takkati fu nekk mu ngi ciy tudd daaru buy dénk yàlla sax dëkkam yi daaru salaam lay jiital teg ci tuuba laka daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi fihima saauduri lu bëree bëri ci xasida yi da gis importance bi mu jox daaru salaam moom sëñ tuuba nee li tax sama xel mosu ci jug mukk mooy yéene ju sell ji ma ko sanje nga xam ne lu dul yàlla bokku ci du genti maam yu ma dem ndabu ji di ko dekkal du suuf su may xëccoo ba tax ma génn dem sañc ko du damaa amul kenn dikk damaa soxla yàlla képp rek moo tax ma ñëw sanc ko moo tax suuf sañu goreel ko goree koo xam ne kenn mënul ko misaal ak la fa sëñ Tuubaa lépp ak la fa sëñ ñaan lépp nga xam ne faatu ñu suul la fa rek la fa sëñ bi digge ci ngëneel kenn xamul nu toll àgg na ne malaaka mi nga xam ne mooy mbugal suñu borom du ko yebal mukk suuf daru salam malaaka yërmandi rek la fa yàlla wàcc moo tax du ku jóg ñu faatu ñu mën laa denc daaru salaam. Hmm. sëñ Modou Rokhaya ab taalibeem faatu na ca Ndakaaru ñu téléphoné ko. ne ko diw de daa faatu ñu ngi koy toppatoo oto nii pour indi ko sëñ Modou na teg ba mu ne ah man de diw lu ko war a may lu ko war a mën a may jagle ñëw daaru salaam ndax diw de jëmut fii ci sama kër gi lu ko war a may ñëw daaru salaam moom. diir bu néew rek yàggut waxtu yu néew ñu téléphoné ko ne ko ah, moom kon bokkam yi bokk ci geneen wàll gi dañoo xëccoo moom ba ne ñoom fii lañ koy suul ñoom mun a waa baax na bañ ko bee mun a ah loolu laa foogoon. ndekete ndekete kon faatu ñu denc la fa rek meneen mbir la. lu caaga nit ki day mën a maam Cheikh foofu la ko sëñ Touba jox mu ne fi di yal nag Serigne Touba liggéey bu rëy sëñ Touba defal ko jagle nag ak jagoo goo xam ne tolloon na jamono joo xam ne argent de poche am li muy doxantoo moo ëpp bit ci Sénégal ci xaalis. loolu xam nañ ko. Hmm. loolu ñëpp xam nañ ñëpp saxal na demoon na ba ni mu daan denc ay xaalis du nekk benn barab day denc barab sangam nangam denc barab sangam nangam denc barab sangam nangam ba kenn du xam noo xaalis bi toll. jóge na gaawaan gi jëm Jurbel romb ab butik daa jënd la fa nekk lépp xaymal marchandise mépp jaay ma ñu jaay ko mu jël mu jël joxe noonu daan joxe du ñëw ci bitik naan jaay ma nangam weesu nangam day jënd lépp joxe moom maam si fu ma sa jëm mbooloo mépp dañ koy topp riis googu la ko yàlla defaloon mooy daa wax ne jannat yi ilal jannati sëñ Tuubaa ko defal sama àjjana ji may dund day wéy ba àjjana perkal bu weex rek daan sol lu nit ma sa sol mu ne maa ngi leen di xaar ci perkal bu gàkkul waaw perkal bu gàkkul rek day seen wecc du gàkk nga xam ne àjjanaay biir yi la dund ba dem ci àjjanaay biir sëñ Tuubaa daa ko da ko waxoon ne ko yow yaay sama safaan suñu borom man ci jafe ak naqar ak tiis ak xat-xat ci laay yéege jëm ci yàlla lu samay nattu gën a bari rek sama yéeg gën a gaaw ci yàlla yow nag yaay samab safaan yow ci xéewlu ak bànneex loo gën a bànneexu gën a xéewlu rek gën a yéeg jëm ci yàlla moo tax yàlla mane na nu ne su borom subhaanahu wa taala maam Cheikh Anta loolu loo ko yàlla defaloon. moo tax mu am euh, màggal gi. waaw moo tax moo tax mu am moo tax mu am li moom moom maam Cheikh Anta. ndax da war a génn. kon ba sëñ Touba ba li ma la wax léegi ne rek ku bari alal la. Mm-hmm. ndimbal yu nekk def na ko ci réew bi muy aji màkk ànd ak Cheikh Abdoul Fadil daa wax ne lépp lu dërëm di jar lépp lu luy jar dërëm di ñuy waxaale na nangam loolu moom maa ko féetewoo mbooloo mu baree bare di la yóbbu ñoo xam ne da leen a jox xaalis lebal leen ko ngir ñuy jënd marchandise indaale li mm-hmm. ñuy wax import export maam Cheikh moo ko jëkk indi ci réew gis nga diggante ak Blaise xis la boo xam ne mënu wax maam Cheikh Anta waxoo ko mm-hmm. euh, dañ tuumaal ci lu bari beles dañoo toll ci campagne maam Cheikh nekku fi waaye denc xaalis yi maam Cheikh Anta dencoon yépp maam Cheikh euh, adversaire u boobu xam na ko tey xaritu maam Cheikh mm-hmm. jaar fa di jël di campagne bi noppee topp euh, yoon woowu xam ne alal yi maam Cheikh la doon financé ci doon campagne mm-hmm. beneen maam Cheikh gari fii ci Saloum ak ngan gu gàtt goo xam ne Euh, jege gi mu jege Gàmbi am taaluba yu ko soxla foofa sàkk woon mu ñëw fa. maam si Anta jàll fa ci gaal. ziar leen ñu tuumaal ko ci ñaareel ne daa génn réew mi te amul autorisation bi ñu des mooy daa financé xaalis pour daane nguur ci lañ ko tuumaal ba yóbbu ko Ségou exilé ko foofa ngir téye ko fa juróom-ñetti at wala sax lu ko ëpp jaar jaar yaak nam demee lépp loolu loolu loolu loolu xam nañ ko gis nga belees ak mujjam ni mu mujj doy waar diggante ak Maam Cheikh Anta diggante bu doy doy war lool ci kaw ci loo xam ne lépp kaw ay tuuma la waaye nag ku doon zahir war a ñëdd baatin baati zahir balaa mën a taxaw am baatin noonu la fekk sëñ Touba ca Congo sëñ bi ne maa ngi ci géej gi rek mu jël ci xasida yi bind ci mbind mu bari muul ko ay diiwaan moo jëkk a muulal sëñ Touba xasida yóbbul ko ko foofa ay gaal ba mu demee bi paas di wàcc di jëli gaal di luyee di duggi saxaar di wàcc di fu ne muy laajte fu ne muy jaar di neexale lu ne def na ko ngir gis sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax booba sëñ bi yóbbutoon a gis hmm. waaye bi mu nee jàkk sëñ bee sëñ bi dana teqatre mu ñëw nuyu mu ne ko seex Muhammadu Rasulullah yi toogal ci lal bii kat moo ma wax ne sax yow yaa ngi ñëw moo ne ma naa wëlbatiku jàkkaarloog yow daal ko ne nee na nanga ma yoral sama zahir ma yoral la sa baatin mu yoral ma sama baatin keroog mu ñibbi si lal boobu rasulullah yi toogoon la jël rafaatale ko jox ko maam Cheikh Anta ne ko na nga ko barkeeloo am na ñuy wax ne bi maam Anta faatoo lañ ko teg ci lal ba am na ñu naan dañ ko ko dencaale am na ñuy wax ne kenn dencaale bu ko waaye lal ala kulli bi mu faatoo teg nañ ko ci lal kon loolu lépp day wane digganteem ak sëriñ Touba keroog mboolem bu fa sëriñ Touba bind mu indi ko indi ko jox ko sëñ Massamba ñu ñu ñu sotti ko maam Cheikh Anta di moolal sëriñ Touba ay xasida sëriñ Touba bi itam le 11 1902 la wàcc ci teerum ndakaaru bi mbooloo mu bari gatanu ko waaye taalib yi li ñuy bari bari seex si mag ñi dañoo jekki ba yàgg rek gis benn xale bu wàcc ba ëgg si jàkkaarloo mbooloo mi ne ana Cheikh Anta loolu la wax Cheikh Anta képp lañ laaj maam Cheikh Anta mu topp ko ba jàkkaarloo sëñ Touba keroog maam Cheikh Anta la sëñ Touba waxanteeg tubaab yi moom la ko doon seeraloo maam Cheikh Anta ne jàkk sëñ bi rek daa daa dafa suuf sëgg fab ay loxoom teg tàmbali jooy sëñ bi di fab loxoom di ko teg ci boppam naan ko Cheikh àndal ak sago Cheikh am nga ndam ba noppi àndal ak sago am nga ndam ba noppi bi mu dalee sëñ bi ngir signature am bu mujj tàggoog tubaab yi wàcc ci gaal gi maam Cheikh Anta la seeraloo ne ko Cheikh xam nga lu tax ma war a fee seex tubaab yi dama laa bëgg seeral ne keroog ba ñu ma jëlee fii ba nii ñu ma indee tey yoon wi kat yàgg na lool waaye mosuñu ma fii jigal lu ma def entrepreneur bi firi loolu tubaab yi ne waaw waaw loolu dama muy dëkk sëñ bi baa mu waat loolu ne bañ ma fi jëlee ba fii ma toll mosuñu ma fee tere dara lu ma bàyyi daal di ciy teg ne ñoom kat ba ñu àndee man ba fii nu toll mosuma salit te seen këyit yi nuy bind duñ ci duñ ci bind dara loo xam ne ëllëg danaa rus ngeen gis ko wala ñu nettali ko ngeen rus koo dégg te ñoom day jaar na ma ñoom foo xam ne duñ ko bind duñ ko nettali mbaa buñ ko bindee duñ ko nettali seex maa ngi nii na ma demee woon laa ñëwee sama cër desu fa lagg luñ ma réyuñ ma lagg lagg luñ ma sama dara desu fa maa ngi nii bisi na seex dara soppikuwul ci man xanaa bi jaww bi te adduna na ko fi yàgg bi jaww loolu sëñ waa tàggoo moom sant dara soppikuwul ci man lu dul bi jaww bi te adduna ko fi yàgg bi jaww juróom-ñetti at yooyu coono yu metti yeeg tartar yi tax na bijjaaw bi ndax bijjaaw coono dana ko teg ragal yàlla dana ko teg sëñtuwaa boole lépp moo tax ngay gis bijjaaw bi mel melokaan wax ne wu jéggi dayoo la wax tal kawar gi ngàjj geen baax a baax baax kon loolu day wane wàccuwaay maam Cheikh am am am am ci moom fa sens ñu daal di wàcc sëñ Tuubaa ko ndar mu jóge ndar. daldi di wuti nag Sanusi ba mu ñëwee Sanusi la def tekk woore fa weeru koor wa ba mu jeex ba am juróomi fan ci kori wa mu jóge fa nag wut si Daaru Salaam bis bii nuy fàttali ko bis la boo xam ne la ca maam si Anta defoon bala ko caa kenn defati la ca maam Cheikh Anta defoon doy na war ay bis goo xam ne maam Cheikh Anta luy juru kër ba ci ay baa yu nuy rëdd ci àll bi lépp lu dagan a lekk rek gis nañ ne loolee ren dañ ko daru salaam jamono joo xam ne picc képp nit mënu ko am ndawal àgg na ci tan yi tan yi ci boppam fees dell jaw yi daru salaam ak li ko wër mboolem garab yépp fees dell ak i ndax ndawal goo xam ne dañ koy lekk ba duñ xam sax duñ ko def dañuy rendi ba kenn dox sëñ Touba maam Cheikh Anta néeg yi mu ko dugal rek tissi yu foor yi mu ko woddee biir ak biti nga xam ne néeg dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko balanfanaas per yeeg lépp parfois sikki yi àgg nañu koy def ci ànd yi sikki yi ñu koy def ci ànd yi di ko ci sotti muy jóg kër gi kenn mënu koo lijjanti ndax xet gi fiy bon ni ak taar bi fi nekk xasida yi di jolli fee tur yàlla wi di jolli fee kenn mënta lijjanti ngan gi mel mag ñëpp di saafante ak sëñ Tuubaa ku ko gisutoon keroog foofee nga ko gisee góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp walwale jëm Daaru Salaam muy ngan gu kenn attanut kenn mësta ganale Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te kenn ganale wadut ko maam Cheikh na taxawu ngan nag saa yu dil ñuy fàttali ko gisee boobu ak bis boobu loolu moo waral màggalu Daaru Salaam soxna Jaaratullah <laughs> jërëjëf soñ Ahmadou xam naa ne dañ laa fekk ci teewaaye waxtaan wi am na solo ah màggalug Daaru Salaam moom li nga wax ci maam Cheikh Anta képp koo xam ne nekk nga ak sa mag. Mhm. war a jox cër sa mag ndax lépp da nangu kilifteef moo ko ko may. Mhm. Eh, di santit waa Daaru Salaam yëpp wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. Ah, baax lool du suñuy xarit ah bëgg ñu fonk Waarwi TV lool lool lool lool lool nag ndax nit ku ne rek boo amee ci buntu kër bunt na ko sante ka fa dugal. kon nag di sant bu baax sëñ Maamun Mbàkke moom sëñ As Guédé ndax tey bu ma demee ba Daaru Salaam wax dëgg yàlla ñu may gën ma bëgg ma fonk ma sëñ Mamoun Mbacke moom sañ As Guédé da cee bokk ak soxna Ndey Diop moom maam Cheikh Anta moom sëñ Modou Rokhaya nekk soxnaam moom it bokk ci bu baax a baax ndax ki la defal lu baax bu ko fàtte benn yoon mm-hmm. di ziare taalibe Daaru Salaam yëpp nag teg ci sama nijaay Baye Cheikh saar ak mboolem koo xam ne taalibe Daaru Salaam mm-hmm. ñu ngi lay ziare xam naa ne waxtu wi xoj nañu mm-hmm. tey ji nag nga tàggatoo ñu joxetuwaat beneen jotaay Eh, ndax yow fu mu toll dañuy war di gisee. ah incha allah yow dañoo gisee ndax yow askan wi dañ laa soxla. ndax sa waxtaan dañ koy hmm. yàqamti. saa su ne bu ma nee kan laa war a waxtaanee su ma ko dugalee da ngay dégg naan ma hmm. wool sëñ Ahmadou. Hmm. di suñu borom def la mag. amiin amiin bàyyi laa sam la sa kattan. nga tàggatoo ak sa bi ngay jox nit ñi ci toppe. Ah, ndax fii moom toppe dafay feeñ. wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan. waaw alhamdulilah soxna Diarra toppee lu ñuy jàngale ci maam Chante. topp ko nga war a topp xañul kenn dara doomu aadama ni ko suñu borom nosee kurut nit soo juddoo tey rek doxi tey fi ne bu xar juddoo tey dox tey nag juddu tey dox tey gëléem juddu tey dox tey lépp lu man doon boo juddoo tey dox nit du ñeenti tànk yee tax de déedéet cuuc sax ñaari tànk la waaye bu tojeete bi nanam tey dox tey doomu aadama la suñu borom teg ci programme su juddoo dana def ab ñu nekk ci moom ndax am na lu suñu borom di programme ci moom muy xel loo xam ne daa bëgg mu ànd ak jëmm ci ci màggaay ak ci dëgëraay ak ci way bu ne waxoon yàlla nit ñëpp dañuy sotteendoo ndax def na ko sàkk na nit ko amul ndey sàkk nit ko amul bàyyi yonent yàlla Aysa kenn xamul bàyyam leer ko suñu borom la mu ngoog Mariama rek la am muy ndeyam aadamaa nga noonu amul ndey amul bàyyi yàlla sàkk ko kon yàlla bu ko neexoon sàkkanoo bindeef yi li ñuy wax kilifteef du am ci kaw kenn kenn du ko am ci kaw kenn waaye yàlla nag moo doxali nii ndey baay nijaay maam nangam boo leen daggee ci kaw ñëpp tudd ay kilifteef ñu war leen topp jox leen ay cëri kilifteef te loolu mooy aaday réew mi dëkk boo dugg am na magam dëkk kàddu la ñëpp yi diggu bu aw la amee fa la daje bu waxee kenn du ko dindi ndaw loo gis topp ay waajuram bu diglee ñu def bu teree ñu bàyyi ndaw ñëpp di topp seeni mag su diglee ñu def su teree ñu bàyyi soxna yi di topp seeni borom kër bu diglee ñu def tere ñu bàyyi doomu jigéen yi diglu seeni ndey bu ñu diglee ñu def ñu tere ñu bàyyi loolu moo nos Sénégal te mooy force am mooy dooleem mooy aada joo xam ne neexul nag pays occidentaux yi moom loolu mu neexu leen tubaab yi tubaab ñoom xamuñu loolu jooju aada te it hmm. arrangé wu leen Mhm. tubaab bi ñoom liñ bëgg a daj mooy kilifteef ci fànn yépp nit ku nekk am sa liberté moom sa bopp lu la neex def fu la neex amul tàggoo amul nangam nangam waaye suñu réew mi ngay fekk boroom sikkim boo xam ne ñi mu wut a yendu àll te tàggoowut ba am digal mhm. ñi wut a fanaan àll te tàggoowut ba am digal mhm. loolu moom fii ko koy fekk muy kilifteef te loolu rek mooy li am solo nun fii nu toog écran bi ti nu nuy wax am na ko bu nu woo oon fii la nuy tekki micro bi dagg lépp Mhm. daw la ñuy def. waaw waaw daw la ñuy def. Mhm. waaw te sunu kilifa la sunu mag la noo bokk nekk. Mhm. dégg nga kon kilifteef mooy sunu valeur mooy sunu gànjar. mooy li nga xam ne moom lañu ñu war a sàmm war koo topp war koo xool maam Cheikh Anta jaral na ma la waxoon da koo jaraloon. boobu adduna yi tukki nag kum jaral rek nit ñi gis ko faw sama borom jox la cër boo xam ne na bépp dañ ci seen bët te ku ko amut dana la ca ñaaye maam Cheikh Anta sama borom defal na ko loolu ci topp goo xam kon nag mën nañoo jàngat ci soxna Anta Ndiaye Mbacke nangu jigéen ak yaatu ak nangoo bokk jigéen day nangu day yaatu day nangoo bokk wàññi tibbante tànk wàññi xasante ñi wàññi gaarwalante wàññi ëppalante wàññi fiiraange wàññi nanga wàññi nanga wàññi nanga ba mbay jaamu yàlla wut yàlla ngir yàlla sëy dañ ko tegoon ci cadre wut yàlla waaye teguñu ko woon ci cadre bànneex ak fiiranteeg xuloog nangam nangam moo tax mag ñi amoon li ñu am mm-hmm. topp sa kilifa itam dañ koo tegoon ci cadre ngir yàlla waaye tegu ci cadre mu gënanteeg deret loolu niwul foofu ndax kon loolu rek mooy mbir mi doomu aadama day nangoo topp ngir jëm yàlla soxna jaara léeg-léeg nga topp koo xam ne yaa ko ëpp xam-xam mm-hmm. nga topp koo xam ne yaa ko ëpp man-man mm-hmm. léeg-léeg topp koo xam ne yaa ko ëpp ay dugg-dugg nga topp xam ne yaa ko ëpp doole léeg nga topp koo xam ne yaa ko ëpp waaye loo mën a am booleel sa am am ba ak sa jëmm lépp topp ko topp mm-hmm. loolu mooy taarub yoon wi rawatina ëxru mbakk yoonu murit moom tariqatul mutataabaa rek la la sëñ Saali waxoon mooy yoonu toppante la yoonu toppante la noo mën a toll loo mën a yor foo mën fexeel ba toppe rek wàññiwul dara te lay gën a taaral mooy gànjar gi muy dem sëñ Muntaxa lii mu am mhm. loo ko ko may toppe kër gu dugg tey ci buntu këri sëñ Tuubaa yi sëñ Muntaxa rek lañ jox seen nopp baak seen bët ba ña nga ne kot di ko diglu mhm. bu nee càpp ñëpp diglu ko bu àggalee dem jëfe ji Mm. lu ko waral daa topp ay baayam ba ay baayam jeex mu topp ay magam kera ba muy takk kaalam gi ci baatam di buuf ci kanam alaaji baar di ko jox mm-hmm. yaa ngi koy fàttaliku wallaay keroog bu muy buuf ci kanam sëñ Sidi Muxtaar di ko wax ne sëñ Sidi bu woote woon ab ku teel a daanu lay doon ndax sàppe sa kanam ci lay nekk waaye a ca gannaaw booba yaa koy fàttaliku mm-hmm. noonu loolu moo ne ci moom moo tax ay rakam yëpp tey boof moo tax jii ñëpp maase nañ buuf ci kanam amul maa muttafaqun alayhi la amul mm-hmm. critique si mu tax kenn du ko critiqué kenn du ko critiqué waaw moom fa nga rek mooy yoon wa kon nag jàngale na lan mooy yoon wi lan mooy valeur yoon wi lan mooy gànjaru yoon wi yàlla fi yàgg loolu mbàkki te wér man nag mu ma laax te fendiri ma ko ñu ndax dama ko sopp cofeel goo xam ah, ne ñëpp ko sopp cofeel gu doy war la <laughs> yàlla ko fi yàlla yàgg ñëpp ko sopp waay damay ko ah, di la sant di la suñu borom yaay ba ci kanam sëriñ bu ndaxaa moom ñëpp ko topp hmm. Ah, di ko santit di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ndax man xam nga samay doom dañuy ay mbaakol mbaakol comme nga kon sëñ daxa dafa bokk ci ñun suñu lépp di ñaanal seen baay ba yàlla yokk leeram taas ñu mm. ci barke bi ñoom it ñu màgg ba bokk ca barke ba eh, fi ci Mamour sax mm. ci barke njaxate yépp nag ak Mbàkke mm-hmm. eh, di la sant di la gërëm bu baax di kontaan ci yow saa suñ toogee yow rek xamal ne di mm-hmm. jàngaat ci yow mm-hmm. yow dangaa doon suñu xarit bu yàgg ba dara duñu dara nga ñu àndoon ak ñun booba mënun dara nga di ñu teete suñu juumee suñu liggéey nga ñu waxal yii ñu ànd li ma naan da nga gis ànd boo xam ne. li mm-hmm. moo ci waar a toppee. day yàgg day yàgg lu ma soxla ci yaw ci mm-hmm. man la yàggee. Mm-hmm, waaye loo nangulut kenn it su ma la ko waxee da ma ko nangul. waaw di la sant di la gërëm bu baax di sant sa waa kër gépp nag. say soxna ak sama xarit bi soxna Faat Baas mi mu féetale sama xarit boobu. ñaan suñu borom yàlla na fi yàlla bàyyi ba ñu koy muur mu sëy eh, di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp tey na gis ngeen li leen indil ci maam Cheikh Anta ku ne war cee jëratug jàngat bu baree baree baree bare ku ne nga cee jàngat xam ci bëri di sant sama cameraman bi Sané. Mm-hmm. Mm-hmm. ak sa sëriñ bi toog. Mm-hmm. sëñ xaadim sëñ xaadim moom it di ko sant bu baax xol bi tooy na waaye maam Cheikh Anta moo mel noonu. Ah, di sant tamit équipe bu Waarwi TV yëpp Basirou Cheikh Samb. ak Sira képp koo xam ne yaa ngi équipe bi rek nga dañoo namante woon ji doon wax moo ne Daaru Salaam ñu namante moo war a tey ñu liggéey bi liggéey. di leen ñaanal suñu borom nag yàlla na yàlla kattanal ba deux mille nu fekke ko ci jàmm tam gën a neex gën a barke ci barke sëriñ Soñ bi sama sëriñ sëriñ Soñ waaw yow <laughs> ah. Ah, di jaajëfal ñëpp nag di sant waa Daaru Salaam ñëpp ah, nag te naa leen lii leen indi tey ci maam Cheikh Anta ndax la duuf si nag sant si Abdou Samad sama sama sama sëriñ ba waaw sama xarit ba sama wala kooku mooy li nga daan tey mooy sama bunt ci kër sëñ Daaru Salaam. waaw ah. waaye man mooy sama bunt ci kër sëñ Chouaïbou. ah moom sama baay la. sama sa baay mooy sama bunt. Ah, moom sama baay la ndax El bu El Hadj Mor Seck daa yàgg njaboot sëñ Chouaïbou. wallaay ah, di ko sant bu baax sekk moom moo ñu boole ci sëñ Chouaïbou. di sant sëñ Cheikh Mbacke Chouaïbou mi nga xam ne mooy suñ lépp. ak njaboot sëñ Chouaïbou bu ñu limee dañuy jum. di commencé ci mag ba ka ca nekk caat ñëpp ñu leen di sant di leen gën sedd sama di ko ziare bu baax a baax ndax alaaj moor mhm. daa yàgg ak moom waaw daa yàgg euh, fi mhm. waaye ñoom nag mbàkki wéttali lañ ñu ba mhm. wéetuñu kon nag li ma naan li ma sama benn xarit naan yow daal am nga wéeru waaye man na ko man ko saison bi moo sama wéeru waaye moo tax du wéet nit ñu baax di sant baax ak nit ñu baax ñi ma yàlla boole tubaa sama xarit sama bàyyi sama lépp Cheikh Ibra Fall kooku moom maa ngi ko ñaan suñ borom guddal fanam wéeral bu baax cëram ak bàyyi Ndam Fall euh, moom sëñ Mortala Fall sa Fallou Fall moom sëñ Aliou Mbawar askanu Baye Fall bëgg askanu Mbacke gépp mu mhm. laat ak euh, képp koo xam ne rek sët ko sëñ Touba maa ngi lay sant di la gërëm bu baax ndax lépp lépp soxna jaara ginnaaw yàlla yonent bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ma defar eh, sama waajur ma di ko sant bu baax ci defar gi ñu defar ban man a ànd ak njaboot Sëriñ Tuubaa mhm. ndax bëgg a doonu murit taxut a doonu murit yàlla moo la cee boole mhm. kon nag bu la cee yàlla boole sa waajur bokk ca ba cër ba nga ci am saa foo toog rek boo ne diwee sama waajur ñëpp gën laa naw Seck maa lay ñaanal fa nga nekk yàlla dàq fi nga jóge ci barke Sidina Mohamed yàlla bàyyi ñu waajur yu ñu dese ak mboolem juddu te ñu ciy góorgóorlu di ñaanal suñu waajur jigéen nit yàlla bàyyi ñu ko fi bu baax ba moom sa xarit la moom laa bëgg moom sa la waa kër gi yëpp kon nag ñu leen di jaay jaajëfal di leen joxaat ci beneen jotaay ci beneen waxtaan ci geneen kilifa ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul incha allah kon nag jërëjëf jërëjëf kon nag Daaru Salaam nan ko dem te sàmm xale yi te bàyyi xale yi ndaw yi yóbbu ñuy te ko ten bàyyi defante bi ten dem màggali mm-hmm. jaamu yàlla la ndax maam Cheikh Anta lii mu am ka da ko faa liggéey ba am ko mm-hmm. nan bàyyi dañuy defante ji waaye mm-hmm. ku dikk ubbi bunti néegi dalal gan ñu dal ten bàyyi baatu defante xoo yi def ndànk ah ñi sant géey tamit bàyyi seen li def jël yeeg yooyu ñoo yëpp ñu ko nan bàyyi seen yooyu ñu def ñu dem màggali ci jàmm ñibbisi ci jàmm ak salaam yàlla